Salam alaikum, yi ñi top ci l'oiseau du net ñi ngi di nuyu bu baax di ziar di dellu siwaat ak yéen ci sen chronique bi nga xam mom lañu tuddé constat et remarque ma ci ànd ak Fadal Fall kon weekend bu jot ñu fas ñew jangatal jàngatal en tout cas lépp lo xam dafa aju ci musique sénégalaise ak waykat d'une manière générale en tout cas show business comme niñ koy waxé

loolu nag dafa am ay éléments yoo xam ni ñoo koy faral di anime genre situation yu mel nii dafa am ay acteurs yoo xam ni ñooy nekk di euh, di animer loolu benn bi ci njëkk moom mooy artistes yi ci seen bopp beneen bi mooy producteurs yi bi ci des mooy melomaan yi ñi nga xam ni dañoo maanaam fans yi ñi nga xam dañuy topp. Euh, waykat yi kii ne man Pape Diouf laa faral kii ne man Sidi laa faral kenn man Wally laa àndal léegi nag noonu nga xam ni noonu la mbir yi euh, tasaaroowee dafa am loo xam ne daf koy impacter ci euh, liggéey bi nga xam ni moom la artiste bi di def en tant que tel maintenant bu ma ñëwee ci kaawu ki nga xam ni moo di Wally sekk dama leen di indil Wally Seck moom naka la duggee ci musique Wali dafa dugg ci musique ñeu fekk papam don woykat bu mag Sénégal ñëpp xam ko nga xam ni comme ni ko waxé won ci Youssou Ndour mom dafa fekkee ay génération yu bari Thione Ballago Seck léegi nak Wali kooku moy papam Tion Seck xam nga dañu wax ni ka Wali narul way parce que footballeur la naroon nek effectivement waye yalla dogal na nak comme euh, kéwal du tëb doom jëbati comme ni ñu koy waxee waali yàlla dogal mu atterrir ci musique sénégalaise suñu borom ubbil ko ci ay bunt ba ñëpp ràññee ko ci ñu ngi fàttaliku premier single am mi ngi ko génnee 2009 mu di Volio wala boo juddoo boobu boo juddoo la njëkk a génnee après teg ci Volio alors boo juddoo bi mu ñëwee gis ngeen ni que dafa nekkoon benn single boo xamee ni que dafa xawoon a jël musique gu papaam. bu ngeen xoolee rythmiquement parlant musique gu Papa Dia la jëloon mais au fil du temps Wali dafa démarqué wu nag carrément ci papam parce que dañu doon wax ni euh, Papa Dia daf ñu ko bëgg imposer nangam nangam wax yooyu yéen koy fatlikou mais li ci gën am solo moy boy bi dafa jël yoonu bopam comme niñ koy waxé lé nak yoonu bopam bi mu jël suñu borom ubbil ko ci ay bunt moy li ñi wax nit bu fekkee ni ka euh, dëggal nga sa bop rek yalla da lay ñëw fekk ci li nga nekk alors loolu nag incontestablement il a occupé le devant de la scène musicale bi mu ñëwee fekk na fi ku mel Pape Diouf muy toj alors bi mu ñëwee fekk Pape Diouf ci année 2009 bobu 10 11 Pape Diouf teewoon musique sénégalaise loolu ñëpp xam nañ ko grand théâtre bi nga xam mom moom la ñëpp ragaloon jamono yooyu Pape Diouf daf ko doon feesal dell léegi nag waa di jël Pape Diouf def ko référence

alors ñu seetlu loolu ci diggante Pape Diouf kenn xamul nak loolu ci fans yi la jógee wala ci ñoom ñaar la jógee en tout cas dem na ba ak kujje dox ci sen digënté loolu di dox di dox di dox ba wali fi mu nek ni nak mom dem ba melni ku xawa a devancer Pape Diouf touti melni dal euh ci walu xew comme ni koy waxé wali melni mo gëna xew pap Diouf légui nak dama lay limal ñetti artiste

dafa xew carrément instant bi ni mo occuper le devant de la scène musicale légui nak ñooñu ma junj ñëpp bu ngeen déggé ni ma ko junjee di ngeen xam kan mo bëgg a ak kan mo xewon bay bëgg a xewi ak kan mo xew légui nak dafa am ko xam mom dafa bëgg fekk ci gi nekk ci kaw teg ko choc légui nak dafa am lolu euh lo ni mën nañ ko ci jàngat ci ñi nga xam ñom ñoom ñoo leen entouré bu ñu xoolee producteur bu mel ni Maxu Subatel daf ci jouer rôle bu am importance léegi Maxtaar moom euh, businessman la te xam nga businessman dañuy faral di wax ni euh, ci wàllu business amul sentiment c'est-à-dire loo mën a def pour atteindre sa objectif da nga koy def moo tax man du ma ko blâmer comme ni ko ñenn ñi defee naan moo créé li moo créé moom dafay def liggéeyam te moom ci yoon boobu la nekk. xama maktar maxtaar ko xam mak maktar job ñukoy wax maxu subatel mu yeral labal boobu ñu wax subatel bo togon nak mom mën ngeen tok fi ba joge fi du gem ñam wax buñ la né moy def yu reuy sax da nga est ce que est ce que est ce que waji mo koy def alors lay nak koku dafa am fu mu jaar ak pap Diouf amna fu mu jaar ak wali sek liggéey na sax ak Youssou Ndour actuellement moo yore Sidi job mu melni nak dafa am fu mu jaar ak wali yóbbu na ko Zénith yóbbu na Pape Diouf donc yooyu moko organiser baba organisé sax maxu yóbbu na ko donc mu melni nak euh, relation bi mu ak wali dafa am lu ci xawa a manam dafa dafa dafa melni ñom ñaar dañ dem ba wala ak takaliko am sen diggante légui nak maxu mom ginaaw euh, mom producteur la te du liggéey ak artiste bu doxul c'est-à-dire mom. dalay gis nga nekk ci yoonu yéeg mu ñëw jàppale la te bu la ci kenn ndax artistes yi ci seen bopp ñoom du ñu ànd ak ku amul xaalis c'est-à-dire loolu moom loolu moom ñëpp xam nañ ko cest bu ñu xamee ni am nañu intérêt ci yow léegi euh, et yow am nga xaalis mën nga lijjanti xaalis en tout cas wala yaakaaree nañ la xaalis boo leen wooyee ñu wuysu la ci alors euh, ñu gis ku mel ni Pape Diouf mom dafa dafa euh, bi mu Prince Art bi mu Prince Art euh, déjà dafa dafa que précipitation parce que laaj nañ ko biñ ko laajee ndax tàggu nga Youssou dafa donc wax ak ñi nga label euh, après dem ci problème bi eh, nga xamni man en tout cas bu may analyser situation fofu la ko te dina ci ñew euh, en tout cas ci benen euh, dossier bo xam que mom kessé lay concerné mais fi euh dama bëgg rek euh, de façon passagère ñu xol un peu mom carrière am naka la déroulé wo ba mu yegg si fii ak boy yi dafa nek Prince Art ñu diko encadrer muy liggéey ak ñoom lu yag mu jël Youssou Ndour def ko référence mel ni ku koy topando ba nit ñi sax naan pap Diouf day def Youssou Ndour Youssou Ndour artiste la bo xamne ne kenn mënu ko topando malik dama lay wax lu leer c'est-à-dire lolu buñu ñu jamonoy euh, année 80 yi Omar Dia mi nekkoon RTS doon na fi organiser émission bu tudd euh, concours d'imitation Youssou Ndour concours imitation Youssou Ndour la émission boobu tuddoon dañ doon jël ay jeunes ñu ñëw di topando Youssou Ndour ci année 80 la la wax de ñi fàttaliku paa yi <laughs> xam nañ xam nañ li wax ni alors. Euh, Youssou Ndour du ku ñuy toppandoo moom kenn mënu ko toppandoo ni muy woyee kenn mënu ko toppandoo stylam kenn mënu ko toppandoo boo ko toppandoo da ngay ridicule léegi nag Pape def na ko référence mais toppandoo ki moo warul woon moo tax bi mu génnee Prince Art après am na ñu mu dem signeel mel na ni ànd na ak maxu suba teel benn moment ñoom ñaar ñu doxal mais ñu dem ba ci biir mel ni ak tàqali ko am na bi mu jegee ci ci ci maxtaar signé na def en tout cas ben affaire ak production alors bimu defé à euh, Cheikh euh, euh, production mu melni lolu, loolu la la aboutir label bu mu bu mu mu ko perte de repère en fait quoi voilà mu mel ku déboussolé xamatul nit ñi di en fait en quelque sorte non la demain. alors du coup

Siri Diop ak Waly Seck ñu war a dem Bercy euh, Kaolack mu mel ni date yi dafa coïncider wala dañ ko jàppandoo bon soit Waly moo njëkk a programmé Siri moo mujjee programmé en tout cas télescopage am na alors léegi nag producteur bi moom li ko arrangé lay def mun na def loolu en tout cas ci sama analyse bu gàtt sama xalaat bu gàtt mun na am moom dafay natt publiku Euh, dooley Sidi Diop naka la toll par rapport ak Waly Seck mën na de noonu ah. dégg nañu kenn ku bok ci Waly Seck mu toog ci télévision wax ni Sidi na defar musique am je pense que mom loolu sax dafa juum war won waxé nono ah, en tant que ku jege Waly en fait amna il y a une façon de parler il a mal parlé il a mal communiqué alors du coup maxu mën def loolu pour nat dooley Sidi Diop ba xam. Wali di jouer moom jouer en même temps ban public lay am c'est-à-dire il a euh, pris ce risque là pour natt pour Madame évaluer xol ba xam boy bi lan lay peese té nak buñuy sét fi mu nek ni dafa melni ni yi Sidi séddoo na ak pa ak euh, ki nga xamni modi Wali. mais nak Wali, dafa nek ci ben trajectoire bo xamé ni que euh, dafa am fumu fumu fumu bëgg yegg donc boy yi dañu koy jéem a topp rek pour natt seen doole comme ni ma ko waxee mais moom mi ngi ci beneen level cest à dafa dafa dafa toll foo xam ni fii mu nekk nii nekkatul di euh, xool ginnaaw moom wala muy xool ndeyjaram wala xool càmmoñam fu mu joué dina fees en tout cas loolu moom c'est évident cest loolu yàlla moo ko defal fi mu toll nii nag am na ay artistes yoo xam ne toll woon nañ fa ku mel ni Fallou Dieng nekkoon na fa Alioune Mbaye Nder nekkoon na fa. Salam Diallo nekkoon na fa ñu musique bi nga xam ne tëgg day faral di am musique sénégalaise actuellement Wally moo téye loolu mais Wally nag dafa dafa dafa affaire moom dafa euh, musique foo xam comme ni ko ci Youssou Ndour dafa am xam ba droit yi warul di di ay Tarba

mais nañu joué d'autres, même il n'y a pas de souci Gambi également nous nañu Pape Diouf et Wally dañ fa aussi euh, parce que aussi apparemment Pape Diouf a public qui nga en tout cas ay fans nañ ko nous bu fa joué ñu nous nous nous ñu euh, mais li ci a rek nous deux artistes de renom Koumelni Diouf et Wali Sek, ñu avons professionnellement parlant c'est-à-dire Wally nous a programme après deux jours après trois jours avons joué euh, programme mais nous avons joué en même temps euh, dafa dafa xaw nga musique sénégalaise en fait dafay un encore une fois Malik la musique n'est pas structurée au Sénégal. Professionnellement parlant, la musique n'est pas structurée. C'est-à-dire, c'est très mal organisé. Le ministère de la Culture doit prendre des mesures. Nous savons les acteurs qui sont dans la musique aussi doivent regarder Alors maintenant, je pense que nous avons dit dans cette situation, nous avons la musique euh, sénégalaise me concernée. Euh, Sidi Diop ak ki nga xamni mom modi Wali Balago Sek alors euh aussi Sidi Diop doon na fi joué temps le passé euh, date bi coïncider ak ki nga xamni modi El Hadj Keita Medina mu melni ni da fay répété wu ni ma ko waxee ci Maxtaar Subatel moom dafa bëgg di jël ay risques c'est-à-dire dalay fekk sax ci sa bir fief def fa dara maintenant Sidi nak nek na ci yoon nek na ci yoon alors pour euh, yegg fenn fi Maxtaar aussi. dafa bëgg profito ci moment yoy nga xamni boy bi mi ngi yegg am na mom tam mu liggéey ci boy bi defal ko promo mais nag la affaire gis nañ ni ko jënd na ben matériel bu bess bo xamé ni ko aussi parce que lool la parce que dañu na lekkati lekkati kessa naxu li béy bo boo bëggee bo boo jëlee benn artiste bo xamni ko japp nga ni dafa xew té mën nga liggéey ci mom xaliss mm, da ngeen di jappalanté maintenant Euh, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale wala may jox conseils.. qui que ce soit mais en tout cas Martar, c'est un professionnel parce que sommes en France dund na fa xam na ni événementiel di demain..! d'accord liggéey au Sénégal aussi xam ni musique sénégalaise di demain..! maintenant li ma la wax moom C'est ci businessman Ce li est li arrangé lay def bu fekkee ni que loolu gëm na ni kii mën na jouer te lu yàqal kee dara y a pas de souci c'est-à-dire date yi coïncidé yooyu noonu moom ce n'est pas son souci amul yooyu yooyu yooyu jafe-jafe nit ko am fit la man fréquenté naa ko euh, de façon passagère par le biais euh, d'un ami mais je sais que nit la koo xam ni ku ku ku ku ku am pas-pas la ku yeewu la ku am fit la aussi te show business en tout cas au Sénégal bo fi nekkee nak faaw nga am fit parce que dafa bëri ay affaire yu bari yo xam daf ci xew alors ñi ngi kontaan bu baakha baax Malick je pense que lool lañ mënon analyser en tout cas situation bi man japp naa ni que euh, musique bi nit ñi war nañ ko gëna organiser et que ñu structurer ko ba nga xam ni sorti album yi dinañ dinañ koy décaler nga xam du doon rek sa yoo neexee nga génne album mais dañ naan euh, bii catégorie de musiciens ñoy génne tel album de telle date ñoy génne album de telle date à telle date benen catégorie bi aussi la même chose manam ñu catégoriser musique bi ba euh, di euh, organiser sortie album yi ak événement yi nga xam moy am ci dëkk bi alors ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di contane ñi ngi nuyu wa L'Oiseau du Net di nuyu en tout cas internet yépp di leen ziar di leen xamal ni nak inshallah dinañ ñëw. benn par benn ci artiste sénégalais yi kenn ku ci nekk ñu retracé euh, sa parcours ba pare euh, wax leen li nga xam ni ñii moo leen kale ak ñii lan moo tax ñu dem ba ci yàgg ñu xew yi c'est vrai que xew ak xew yi ñoo ànd waaye tamit nag dinañu analyser xool ba xam gaa ñi euh, fan la musique bi toll nag instant parce que dégg naa Youssou Ndour Dakar Arena la jëm alors du coup loolu aussi événement la bu rëy boo xam ne ñi ngi koy xaar Euh, mom nak xam mom nee mom mom nak nag mom ci ci ci ci concurrence bi mom bokkatu ci ku nek nak jëm na ko concurrence Alioune Mbaye Nder jëm don nak fi jéem après ñu naan wali après ñu naan nangam mais mom il est exceptionnel Youssou Ndour c'est-à-dire il faut que nit ñi nak ñu respecter Youssou Ndour Malick man dama bëgg nit ñi ñu respecter Youssou Ndour fofu lay danelé Youssou nduur am na sama xarit bu nekk euh, bitim réew chaque fois daf ma koy wax nee na ma sénégalais yi xamuñu Youssou Ndour nañ ko jox cër maintenant parce que mos a dégg coon sekk yal na ko yàlla euh, jéggal ñu invité ko ci benn rajo ñu naan ko Wally ak Youssou nduur nangam nangam mu ne leen ñiy tëkkale Wally ak Youssou Ndour ñu ngi may tooñ man Thione moo wax loolu yàlla na ko suñu borom jéggal ñiy tëkkale Youssou Ndour ak ak Wally ñu ngi may tooñ maanaam moom ñi ngi koy too moom Thione alors ça veut dire ce que ça veut dire voilà il est exceptionnel il faut lui donner ce respect là voilà donc euh, merci beaucoup à euh, tous les internautes et à la prochaine Inch'Allah..! one love